Ousmane Gandiga la ngongu Ousmane ngongu Ousmane Gandiga al droite la ilaha illallah heure laaj 19h55 19h55 Lamine ñaari waxtu tegal na juróom fukki minute Ousmane Gandiga ku mën a këpp yalwaan ngi ni waaye tey ndax dina këpp yalwaan kool bu sab na lay bëreel kool nga taxaw ca kaw di ko xool yoo xam tëgguwul ne daa njool. daa maa xam loolu. dafa njool a njool a njool. njool ba wàññi denc. waaw Ousmane Ngongu ndeysaan. Ousmane kan la mujjee bëreel. Eh, bébé la fi mujj a daan. bébé Diène mi daanoon Reug Reug. wallaay lu leer laa la wax. gaañ na fi tamit xale bu ñuy wax yegg waaye Reug Reug fayu na de. waa police yaay jàll de. sécurité baay jàll de. loo ci man Talla Ndiaye dama rek ci sa filma biram ñun ñaari xale ngi nii. Ndiol ak Ndaba combat rapproché mooy arrangé Dame Aliou waaye njool lii la mu ca xas a déclenché des hostilités dana naqaree jege waaye est-ce que bu jëlee tànk bi mboot xeju ci ndax nam ko lale daf may nuyoog njool muy mboot Babacar. wax nga dëgg biram bu jëlee tànk bi boo xoolee tànk bi wax yaakaar nañ ne war na mën a nekk mboot kat moom Kool. Kool moom mën naa bëre wax dëgg yàlla am combat yéex moo ko xaw yàq moom dafa yéex waaw. parce que nag boo xoolee Ousmane Kame wax la nag. mbër jaaxalu ko de xaw xam nga loolu am déet Ousmane Gandigal waaw mbër jaaxalu non màggatum koc koroloj la lu leer la day këpp yalwaan ak mën a këpp yalwaan da ngay yalwaani comme say jamono boo yalwaan yor sa pot ah. daje kam ponkal mu nangu ko mën nga yalwaan sax bu mu yàgg mu por affaire bi rek say loxo waaw daanu nga yàqu nga yàqu ba faaw keroogee doo añ doo añ bu dee reer lay da ngay fande maa la ko wax bu dee añ nga dëñee añay dëñee wala reeray fande reeray fande Lamine añay dëñee loolu li ñu wax di olof ni ñuy wax gars yi xamuñu ko. non ñun bawal ak njàmbur la ñu boole. kaw kaw yi ci Brésil ñoo ko xam ñoom eh. ñoom ñoom ba Serigne Bara. ñun Serigne Bara Argentine Brésil. waaw waaw. ak ñoom Ndongo Fall Italie. du ma ne ñoo ñoo xam. kaw kaw pire la Ndongo. ñoo ñoo xam Fande. wallaay ñoo xam Fande. Ndéego xam nga ko. Ndéego mooy ndékki Lamine. yaa indaale andi leen Ndéego lii. ñu teg cere ji. biram ñi nga xam nga Ndéego. a ah, boobu réer na ma Babacar. Ndéego mooy ndékki biram ah. ndil ndéego li boo ko ci kër ndekki ga la laaj. waa xam nga ñun am na biñ ci wax boj ta. waaw ah, maanaam boo demee ba récréation. nga ñëw rek wut si cere ja. am noo ca def. muy dafay mel ni ñaanee lu ndekki ay 10 heures. ay cere séeréer ko moom wala tukulóor. séeréer moom cere la laaj ko. tu tu tukulóor du bay la min. séeréer bay cere. waaw mais gerte dañ koy dañ koy jaay rek. Habib Ba àtt di wax ak ñoom daa bëgg ñu bëre laale leen bëre leen laale leen tukkulóor yi nuyu nañ leen tukkulóor yi nuyu nañ leen séeréer yi njaago yi bambara yi olof yi joolaa yi. ak saraxule yi bay nunki yi. mu ngi dox ci kawam eh mu ngi dox ci kawam dañuy nuyu ñëpp mu ngi koy koj da koy koj. mën na koo wër-wër loo ba. pare di xeex ak yow nag. day wër di xeex Ousmane. waaye est-ce que dina yegg si korose yi tey. min na njool ndax bëre na ak laay goote. wallaay lu leer la waaye eh, bëre bu métti ca Thiès. ca Thiès waaw. andi ko fa problème bu rëy Ousmane. combat bi it ba mu taxawee yàgg na fekk nañ ko fi mbuur. wallaay waaw waaw mu teral ñu ndeysaan. mu teral ñu Sali yaa ngi fàttaliku Sali. deux jours. Lamine kañ la dellu Sali. dañuy dellu Sali. dem Lamine Salé neex. Salé neex. kon Pape Thialis Faye yàgg bës. waaw jox leen ñu vacance. di nuyu tamit Bazooka. kenn du moom. moo baax. Basoka borom États-Unis ñu ngi koy nuyu di ko ziar. ak doomam ja ndeysaan du mën a ak madame. petit ñu ngi koy nuyu may booy. petit production petit. eh petit. promoteur bu mag bi. petit kenn du moom. ana Jamaïcain. Jamaïcain borom le 14. borom le 14 avril. yee lu nar a am. yomb Babacar. déclaration Lamine Babacar Mohamed. loolu rek rek day feesal stade bi. si te ma bisam la. ñëppay ñëw. Balla Gaye day day ñëw Balla Gaye day ñëw Sa Thiès day ñëw eh Gris Bordeaux day ñëw Ama Baldé day ñëw Siteu day ñëw Papa Sow day ñëw Feugeule nee na ma moom nee na instant bi ba le treize la naroon arrêté dem stade mais le quatorze foog mu ñëw waaye kon Lamine ak Babacar gars yi dañ leen di décorer biram la wax ci décoration Lamine ak Babacar ak Mohamed bañ ko rek teel a ñëw rek teel a jël place moo gën a wóor man daal bëgg na xam kan moo lay ndax ku njool la wala ku gàtt Babacar Lamine maa ne woon ku la yëkkal xel nga yëkkal ko gang ndax yéen a yem yi lool jot loolu baa lan Babacar xel xam nga ab ab doom garab la gang garab la dañ koy lekk boo ci toggee ñeexu xel wala ñeexu gang ah man naa laa yëkkal man nga maa yëkkal te bu ma la yëkkalee mu fay say soxla bu ma yëkkalee mu fay samay soxla maanaam nit fu mu la yem rek nga yem ko fa foofu loolu la olof di wax fu la waay tollooti yem ko fa olof di juum moo gën a wóor olof bi waaye combat bi man balaa maa dee rek ñu première bu di waaye olof mii. wax naa wax wax ba son olof li mu wax tubaab bi da koo sàcc. ñun kay noo dépaysé rek bàyyi sunu sunu yëf. ku wàcc sam ànd. ànd boo toog day toj rajax. boo ko waxoon ci français fi mu toll ni ñu commencé ko def stati whatsapp. nu ma koy af nu ma koy faral man olof laa dégg Lamine Seck. bàyyi ma riw mi olof la nu ay olof ak i séeréer a fi ne. ak i tukulóor ay Kocc Barma fi nekk de. ah ak i njaago ak i joola. wax sa langue. Ah. ah boo demee Arabie Saoudite lu ñuy faje arab Macky Sall waxoon na fi président Macky. président Macky. ba ñuy wax ci mbindum njàngum arabe bi mu ni déedéet boo demee États-Unis boo demee boo demee Arabie Saoudite. ña médecin yi dégguñu français arabe lañ dégg. dañuy faj ba mu baax. waaw. Ah, kon mi gëstu la pour am xam-xam. kese waaye du langage. science baa ngi ci alxuraan. lay lu yàgg lu leer ngay wax. maa la ko wax. mu nga ca bible ba tamit ñu nuy suñ mbokku chrétien yi waa Talla Ndiaye lii yoon la est ku ne jël nga avertissement bëri leen. ñu bëree Babacar lii bu naree continuer lu neex bëre il faut ngeen laale nag bu door mu daanu amul jaxasoo dana am. lii de moom du yoon moom. Kool doo song wala Ousmane wala ngeen xeex xeex leen ah ñaari grand combat yi daal. yaakaar naa ne man su ma nekkoon Kool damay dox ci kawam ndax yaakaar naa ne am na am na fukk Ousmane Gandigal mën a egg sax tax du ko daan ndax ci côté doole Kool moo ëpp doole. mais su fekkee am na lu muy suuraale ci Ousmane Gandigal rek dana ko trompé. waaw loolu Lamine man naa nekk waaye naa wax doole ji nag boo boo tey ci ndax Ousmane mii day liggéey waaye leen li nga wax avantage su Kol la mooy jéem a triser combat. mbër da ngay triser combat. ndax yaakaar naa ne combat bi moom bu jeexee ci nii. nit ñi danañ ko yedd ay mbokk. waaw non amul ma dem te ñëw Ousmane moom lu ci namu lu ci Kol bëgg rek fekk ko ci. waaw parce que moom mag la. moom mu nga jóge ba Gandigal. ñoo fekk si la Dakar. ngay xale. ah bu ñëwee da nga ko war a diriger bëreeg moom. dafa tardé sax boole ci. waaw waaye est-ce que Ousmane neex naa diriger. ah fit moom. xale yi ko doon diriger da am na lu ñu ci jëlee. ni nga ko gis de fit wi ardo. ñii moom ba boobu leen gis nga. avertissement Kool avertissement Ousmane ñaar waa le buñ sàgganee leen 15 pour cent dem de. bu ñettee. Ah. fukk ak juróom ci eh door na gis nga li ma lay wax gis nga Ousmane. problème bi nag mooy Kool du ko mën a song. du ko mën a song a Ousmane taxawaay bi moo doy waar. Birame. kool kool yónnee na ko waaye Touba Dakar. waaye li ko Ousmane ñam sàng saf na de. xam nga Ousmane. inte yooyu muy dóor. dañuy gaañe. da nga seet digganteem ak yeneen gars yi fi jaar. ñoom ñett rek ñeneen ñëpp. foofu la leen jaar. ba déstabiliser leen. bu jar a bàyyi xel Ousmane Gandigal mbir mu doy waar. su ma nee faraab sa xel jëlee lay nekk. faraab. ah Lamine du ma ko wax. Lamine faraab. faraat faraat na ko nag. ay Lamine. sa jikkooy doom nga ji wax nga dëgg. faraat de dama yow fajar rek sama xel nekk ci. ci faraat ko doo wax duur. wala mu ngay ñam. wala cokkaas. faraat. faraat. ma ne nga fulle de. waaw waaw. ku nekk ak say bagages. 15 pour cent day dem. Ousmane ñetti avertissement 15 pour cent la biram. waaw 15 pour cent ba pare nag. naa war na ñaar nga dese même bu temps bi jeexule ba amee cinq avertissement su boobaa dañ lay daal di disqualifier selon le règlement Babacar. kookoy Birame Manate la en même temps nekk Leewtoo. Lamine eh taw moot eh! moot nañu Ousmane Gandigal moot nañu Ousmane Gandigal moot eh, mboot ma rëy na.